أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq fi ñu dalee tey mooy suñu juróom-benneelu buntu muy wax fi sharafil quraanil karimi wa madxihi buntu bi mu nekkoon mooy bi ñu génn mooy mucjizaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël nag ci mucjizaat yooyu benn mucjiza jagleel ko ab buntu muy alquraan ndax alquran mucjiza la min mucjizaati nubuwa imaamu busayri nee na dacni wa wasfiya aayaatin lahu zaharat zuhuura naari lqira laylan ala alami nee na dacni bàyyi ma man imaamul busayri wa wasfi ak sama melal aayaatin ay kéemtaan zaharat yoo xam ne feeñ na lahu di ñeel sallallahu alayhi wa sallam zuhura naaril qira feeñuk sawaraw berndeel laylan ci guddi ala alamin ci kaw ay montagne arab yi bu njëkkoon dañ daan taal sawara ci kaw montagne yi ñi nga xamante dañoo tabe pour ñiy dox guddi seen ko gindeeku dem ci ñoom ñu berndeel leen loolu dafa bokkoon ci seen aada ba dañ daan def sax seen yenn jaam yi dañ leen daan wax dem leen ngeen taal sawara ndax gan ñi romb gis ko buñ ko gisee ñu daldi ku indi benn gan rekk ñu goreel la fa in jalabta dayfan fa anta xurru boo bijjee gan rekk mooy sa liberté loolu nag ñu tabe dëgg ñoo ko daan def mu ne nag maa ngi melal ay kemtaan yoo xam ni ma nga ni fang dara na buuj comme ni sawaraw berndeel wu ñu taal ca montagne di feeñe guddi noonu lay feeñe loolu nag ni ko nit ki xam mooy soo nekkoon ci àll mu lëndëm këris ñu taal sawara ci kaw montagne foo toll di ko séen mu ne alxuraan nag ay kemtaanam noonu la feeñe fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun walaysa walaysa yanqusu qadran gayra muntazimi mu ni wurusu durru daal wurus per wurus mu ni yazdaadu dafay dolli ko xusnan taar wa huwa te mbir moomu moom muntazimun muy lu ñu nose waaye nag walay sa yanqusu du wàññeeku mukk qadran daraja gayra muntazimin buñ ko nosewut moom daal aaya yi may bëgg a melal rafet na ba pare waaye soo ko melalee tamit day yokk taaram rek mu ni comme wurus rek wurus ci jëmmam per bi dafa rafet soo ko tegee noonu mu rafet waaye soo ko defee cib caq soo ko nosee ak moroomi peram mu ne cib caq day gën a rafet rek du ci wàññi dara ci rafetam moo tax mu ne walay sa yanqusu qadran gayra muntazimi du wàññi dara jaam bu ñu ko deful tamit ci peru ci ci ci ci caq mu ni fama tataawulu amalil madixi ila ma fiihi min karamil axlaaqi wa siyami mu ni fama tataawulu déet di guddulante ak tataawulu mooy mooy yuqamtiku pour bëgg a séen dara mu ni nag mébéti aji tagg ji amalul madixi mébéti aji tagg ji fama tataawulu déet di guddulante amalil madixi mébétu aji tagg ji ilaa ma jëm ci la nga xam ni fiihi nekk na ci alquran min karamin ci tab min karamil axlaaxi ci tedd ngay jikko wa siyami ak ay jikko ba tey al axlaax ak as siyam fu ñuy wute fenn la mooy axlaax xulux mën naa nekk xuluxun xasanun mën naa nekk xuluxun sayyi mën naa nekk jikko ju rafet mën naa nekk jikko ju ju ju ju ju ñaaw mais siyam duñ ko melal mukk ci lu dul jikko ju rafet bu musuma dégg arab wax ni siyamun sayyi'un maanaam jikko ju ñaaw mais axlaax xuluq xuluqun karim ak xuluqun sayyi loolu arab daf koy wax moo tax mu ni kon taggkat bi mënul aay ci tagg lool lool lool lool ba toll ci ni moom dina wax li nekk ci alxuraan lépp ci tedd ngay jikko loolu tàggkat mënu ko mu ni aayaatu xaqin min arrahmaani muxdasatun qadimatun sifatul mawsuufi bil qidami mu ni aayaatu xaqin ay aayay dëgg alquran lay melal aayay dëgg ay kemtaani dëgg mooy mucjizaat yim doon wax mu ni muxdasatun lu ñu sos la min arrahmaani tukkee ci suñu boroom lu tax mu ni min arrahmaani parce que waa Quraysh dañ dañoo njortu ni alquran mu ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag mu ni déedéet min arrahmaani mu ngi jóge ci yàlla mu ni muxdasatun lu ñu sos la sos gi tamit mu ñëwaat ni xadiimatun lu jiitu la kon boole na ñaari baat yoo xamante ni diddaani lan alqadiimu ak alxuduus kon naka la ko alquran mën a boole muxdasatun dafay dellu ci baat yi ñuy jàng alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la ñëw kon muxdas la alfaazul quran muxdas la looloo tax ñenn ci boroom xam-xam yi di wax xalqul quran ni alquran dañ koo bind comme ni ñu bindee nit ñi du kalaamullah loolu boo demee mu'taziliye moom la ñu wax ku demee ni kii imam zamaxsari boroom tafsirul quran commencement téeréem ba mu koy bind dafa waxoon ne alhamdulillahi alladi xalaqa al quran benn mag gis ko ni ko lii boo ko defee sa téere bi dañ koy gàddaay mu daal di wax ni alhamdulillahi alladi jaala al quran te al jaal ci ñoom mooy al xalq moom loolu la gëm kon al quran baat yi ñuy jàng moo nekk muxdas waaye maani al quran nekkul muxdas parce que ci yàlla la jóge te yàlla lépp lu jóge ci moom xadim la lépp lu jóge ci xadim xadim la waaye lépp lu jóge ci muxdas muxdas la lépp lu jóge ci nit wala ci àdduna bi muxdas la waaye lépp lu jóge ci suñu borom xadim la ndax al quran kenn ku nekk xam na ni sax na ca lawxul mahfuz lu njëkk muy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te naka la wàcce ca lawxul mahfuz nafa naka la ca saxe xamuñu ko waaye ñëpp xam na ni innahu la quraanun karimun fi kitaabin maknuunin laa yamassuhu ila almutahharun kon alquraan a ngoog mu ni qadimatun waaye nag lu jiitu la ndax lan sifatul mawsuufi bil qidami ndax sifatul mawsuufi melow ku ñu melal la bil qidami ci ak jiitu ndax alquraan wasfu la ci yàlla ndax la yàlla mutakallimun dañ koy melal ni mutakallim day wax lu mu wax alquran la yàlla wax kon moo tax muxdas boobu ak qadim googu liñ koy boolee mooy muxdas bi mooy alquran baat yi ñuy wax muxdas la waaye qadim la ndax ca suñu borom la jóge te moom dafa nekk ku qadim ku jiitu mu ni lam taqtarin bi zamanin wahiya tuxbiruna an ilmaadi wa an aadin wa an irami mu ni alquran lam taqtarin bi zamanin lënkaloowul ak jamono bu njëkk ba wala boog lënkaloowul ak jamono ji nga xamante ni junu sos la ju bees la ndax alquran dañ koo melal ni xadim la lu yi lu yàgg la te jamono lu ñu sos la mu ni waxiya te mbir moomu moom tuxbiru naa dina nu xabaar moo nuy informé di nu wax anil maadi ca delluwaay ba mooy dellu mbindeef yi ak seenu ñàkk ginnaaw bi ñu amee wa an aadin dañu xibaar tamit mbiru xabilatu aad maanaam giiru aad aad ab giir la woon ca la suñu borom mi yónni woon yonentu yàlla huud alayhi sala alayhi salaatu wassalaam ñoom tamit la ñuy wax iram ndax di leen tuddee seen turu maam am na seen maam bu tudd iram am na ñuy wax tamit ni iram mooy turu suuf sañu dëkkee woon wala turu seen dëkk ba am ñuy wax ne tamit dëkk la boo xamante ni Shaddad ibnu Aad moom moo ko tabax ala kulli xaal ay histoire la yoo xamante ni yu jiitu woon la alxuraan moom moo ñu ko nettali kon mu ni alxuraan moo nuy xebaar lënkaloowul ak jamono yooyu waaye moo ñuy xibaar wa hiya tuxbiruna anil maadi ci delluwaay ba muy ëllëg wa an aadin ak ci mbiru aad wa an iramin ak iram mu ni daamat ladayna fafaqat kulla mucjizatin min annabiyina is jaat walam tadumi mu ni daamat sax na moom aayaat yooyu la day naa fi ñun fa faaqat mu dal di kawe kulla mucjizatin bépp kemtaan boo xamante ni dikk na minan nabiyiina tukkee ci yonant yi te is jaat ba mu jamono ba mu dikkee moom ñoom yonant yi seen mucjiza yooyu walam tadu mita saxut yonentu bu nekk jaar na fi def kemtaan waaye kemtaan yi nga xamante ni ñoom moom lañ daan def saxul daf daan jàll bokkul nag ak alquran ñun ñi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam def na yeneen mucjiza yoo xamante ni ni alquran defe ci ñun jeexital yooyu kemtaan defewu ko ci ñun jeexital yooyu dañ koy dégg rek ku ko fekkewut du def ci yow benn jeexital bi loolu nag mooy mucjizaatu yonentu yi njiitu yoon ya yonentu yàlla Muusa aw yat la yoroon bu ko sànnee mu nekk jaan bu ko jàppee mu nekk yat di ci def li muy def lépp qaala hiya asaaya atawakka'u biha wa ahussu ala ganami wa liya fiha ma'aaribu uxra yat boobu kiimtaan la woon mais ci ku ko gis ku ko dégg nii du jeexital yow yenn jeexital mais alquran depuis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ba léegi mi ngi fi di continuer nit ñi di ko gis chaque jour ñu gis ci kemtaan ndax arab yi ci seen bopp yi nga xamante ne ci seen làkk lañ ko tëgg kenn mënu cee tëgg lu mel ni lu mel ni moom ku ko weddi rek laajal Musaylama ma doon wax naan wa taaxinaatu taxnan ak wal xaabisaatu xubsan ak yooyu moo tax alquran mucjiza la kemtaan la boo xamante ni dafay continuer di dem moo tax kon bépp kéemtaan bu jóge woon ca yonant ya alxuraan moo ko kawe ci kiimaane ndax yële kéemtaan dafa ñëw rek jàll bii nag dafa ñëw di continuer loolu la alxuraan wuute ak yeneen kéemtaan yi mu ni muxkamaatun fama tubqiina min shubahin lidi shiqaaqin wa ma tabgiina min xakamin mu ni ñoom alquran de ay aaya la yoo xamante ni muxkamaatun yu ñu xarañe ak ràbb fama tubqiina du ñu desal mukk min subahin ci benn lënt lépp a leer ligi shiqaaqin ñeel boroomuk boroomuk daggoo boroomuk xëccoo boroomuk dàggasante mu ni tawama tabgiina aaya yooyu du ñu sàkk mukk min xakamin ci ku leen di àtte naan alquran am dëgg wala mu amul dëgg ndax ay kéemaane alxuraan ak ay layam dafa leer naññ moo tax du ñu sàkku feneen ku leen leeral naan alxuraan am dëgg wala amul dëgg nit ki nga xamante ni day dàggasanteeg alxuraan day dàggasanteeg aaya yooyu muy melal nee na aay soxlawun ku ku ñëw di àtte di indi ay lay naan alxuraan lii la ak lee déedéet nee na alxuraan rek moom aayam yooyu doy na sëkk aw lay maa xuuribat qattu ila aadamin xarabin aada al aadi ilayha mulqiya salami mu ni maa xuuribat dañ koy fiire xeex waaye maa xuuribat gaaralante wut ak alquran ak aaya yooyu xattun mukk wala ak yonent bi aadal aad yi ngay jël gën ngaa noonu ci noon yi xattun mukk illa aada ndere dafa dellu ilayha jëm ci aayaat yooyu delluwaat ci alquran mulqiya salami sànni ngannaayam min xarabin mel ni ku ñu rékki min xarabin maanaam min ajli min boobu bi maana min ajli min ajli xarabin ngir ak rékki mel ni ku ñu rékki ngànnaayam nee na alquran daal ku ñëw di dàggasanteeg moom wala ku ñëw di dàggasanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak loo noonu noonu noonu noonu noonu noonu benn nga dem ba bàyyi dàggasantege ndax amatoo lay wala nga jébbalu ci sallallahu alayhi wa sallam ndax lay yu la not ku jàkkaarloog moom rekk sànni ngànnaay ngay mujje mu ni raddat balaagatuha daawa mucaaridiha raddal gayuuri yadal jaani anil xurami mu ni raddat delloo na lu delloo balaagatuha balaaga aayay alquraan yi li tax nag muy tanisal damir yépp daf koy delloo ci aayaat yi waaye delloo ko ci kalima alquran mu ni raddat delloo na balaagatuha aayay alquran yooyu daawa muaaridiha daawa mooy woote loo xam ne amoo ci ay lay mu ni daawa muaaridiha wootek aji gaaralanteeg alquran comme nan nan na koy delloo mu ne raddal xayuuri comme delloog aji fiir ji yeddal jaani yeddal jaani loxoy aji tooñ ji anil xurami walif ay koc armalam waa ji fiir yor ay doomam wala ay magam ak rakkam wala ay rakkam yu jigéen wala ay ñoo xamante ni moo leen yilif ay jarbaatam wala soxnaam ni mi leen di sàmme di bañ sàmba booy bu fa dugg mu ni noonu la alxuraan ni mu leen di sàmmee di leen delloo ku fa ñëw nar tànki caaxaan mu dàq la mu ni alxuraan noonu la balaaxa alxuraan delloo képp koo ñëwante ne dafa ñëwoon di mu aarada ak alxuraan naan alxuraan li mu wax fii dafa juum ak li mu wax fii wérul noonu la alxuraan di leen delloo moo tax imam Busayri lu ci bari rek dafay dafay nuróoleel di la jox ay exemple yoo xamante ni mën nga ko comprendre ci sa bopp parce que balaaxa ku ko jàngul mooy rhétorique ku xamul langue boobu boo ko bëggee expliquer loolu dafay jafe moo tax rek daf lay wax rôle bi nga xamante ni moom la balaaxee def mu melalal la ko ci li nga xamante ni xam nga ko waaju fiir bay bëgga dee yor njaboot gu jigéen ni muy dàqi sàmba boo yëfay dugg si mu ne noonu la alxuraan di delloo ki ñëw di ko di ko gaaral di bëgg a weddi mu ni laha maanin ka mawjil baxri fi madadin wa fawqa jawharihi fi lxusni walqiyami mu ni lahaa ñel na aayaatu alquraan yooyu maanin ay maanaa yoo xamante ni ka mawjil baxri dafa mel ni ay duusi géej fi madadin ci ak bari al madad mooy ak tëbbu bari madat mooy boo ko doon expliquer mooy buñ la yabaloon ay kuréel yu bari bu ñëw beneen topp ca bu ñëw beneen topp ca loolu mooy al madat duusu géej noonu lay demee bu jàll beneen jóg géej boo taxawee tefes gi saa bu joowoo ñëw beneen a ngi ci ginnaaw mu ne nag maanaay alquran noonu la toll ci bariwaay maanaa boo firiloon alquran ay boroom xam-xam yu bari kenn du ci bokk ak sa moroom nu mu firee te ñoom ñépp lañu wax mën naa dëppoo ak maanaa ci maanaay alquran mu ni noonu la mel nag ci bari waaye nag wa fawqa jawharihi kawe na wurus fil xusni ci taar wal xiyami ak ak ak ak ak ak xiima maanaam ak dayo mu ni fama tuaddu wala tuxsa ajaibuha wala tusaamu ala al iktaari bi saami mu ni fama tuaddu deesul lim wala tuxsa te deesul takk ajaibuha kimtaani alquran wala tusaamu te deeful togg alal iksaari wala boog alal bir saami ci yokkat alal iksaari ngir baril ga man daal dama jàng alquran ba alquran sàppi ma wala dama jàng alquran ba ba ba ak tàyyi jot ma alquran kenn du ko mokkal ba tax nga cay sonn ci ci ci bañ ko jàngati fa tax mu ni fama tuaddu nag teesul lim wala tuxsa te deesul takk tamit ajaibuha ay kemtaan kemtaan yi nekk ci alquran kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk te nit du yokkat mukk ci alquran ndax nu ko suñu borom programme mu ni qarat biha aynu qaariha fa qultu lahu laqad zafirta bi xablillahi faactasimi qarat mu ni sedde na biha ci ayat alquran yooyu aynu qaariha aynu qaariha bëtu aji jàng alquran fa qultu ma wax lahu ñeel ko wallahi laqad zafirta tuuf nga maanaam gaña nga jàpp nga bi xablillahi ci buumu suñu borom bi fatasimi ngoyal de jàppal de bul bàyyi mukk mu ni in tatluha xiifatan min xarri la naari lada atfata xarra lada min wirdiha shabimi mu ni in tatluha bu fekkee danga jàng alquran xiifatan ngir ragal min xarri naari lada ci tàngooru sawaraw lada lada wax nañ ni benn côté la rek ca jahannama wala iyaadu billah mu ni ku jàng alquran ngir ragal ngir bëgg mu fegal la sawaraw mu ni wallahi la atfa ta fay nga xaral lada tàngooru naaru sawaral lada min wirdiha ci root waayam ba ashabi mi ba ji aji sedd wér di maanaal mawrud fa ni roote bu la neexee ni min wér di ha ca ndoxam ashabi mi ba di aji sedd mu ni ka annaha alxawdu tabyaddul wujuhu bihi min alusaati wa qad jaau kalxumami mu ni ka annaha dafa mel ni ki aaya alquraan yooyu alxawdu mooy déeg ba tabyaddu danay weexe al wujuhu kanam yi bihi ci déeg boobu minal usaati ban fay ñëw kat ñu ngi tukkee ci ay moy waqat jaau te mbir moomu dikkal nañ ko kal xumami mel ni këriñ ci ñuulaayu bàkkaar nee na alquran raxas leen ba ñu set wecc alquran noonu lay raxase nit ci ay bàkkaar moo tax zikkar yi gën a màgg mooy alquran alquran mooy zikkar bi gën a màgg ci zikkar yi moo tax seydna cheikh radiallahu taala anhu fard ay taalubeem ñuy jàng ñaari xisibi alquran chaque jour moo tax kon ñi jam naan cheikh day gënale alquran ci xawma salaatul fatih ci alquran dañoo gëlëm ak ñàkk xam seydna cheikh musul wax loolu nit ñi dañoo war a xam li ñuy wax ba pare doo ko wax Seydina Cheikh musul wax ne fatiha salaatul fatihi moo gën alquran loolu ku ko waxal Seydina Cheikh danga ko sosal mu ni waka siraati wakal mizaani maadilatan fal qistu min gayriha fi nnaasi lam yaqumi alquran daal mu ni waka siraati mu ngi mel ni siraat ci ak jub waka siraati istiqaamatan wala mustaqiman wa kal mizaani komi balance maadilatan ci ak maandu nee na fal xistu maandu min gayriha ci ludul aayaatu quraan yooyu lam yaqumi saxut mukk fi naasi ci nit ñi képp ku sàkku ak njub jéggi fi alquraan leneen ngay gis waaye doo gisum njub nee na alquraan kas siraati comme comme siraat mën na mën naa firi siraat mën naa firi pont ba nga xamante ni moom lañu tàllal mu jéggi jahannama ñu ca ñépp war ca jaar wa in minkum ila wariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya ku nekk di nga ca jéggi ak ku ne nang cay jéggee waaye in minkum illa wariduha al wurud maana al ubur ñépp a fay jaar jéggi fa naajin musallamun wa mahdusun mukarrasun am na ci am na ñoo xamante ni dañuy yamuru kal barqil xaatif dañuy jàmm comme melax wa minhum man yamuru kal barqil xaatif wa minhum man yasaa adwa am na ñoo xam te ne dañuy daw mu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni fa naajin musallamun wa maxdusun mukarrasun am na ñoo xamante ni naajin musallam lañ kenn du leen laal dañuy mel ni melax jéggi taf-taf am ñoo xam ni faaw ñu xoos leen fa am na ñoo xamante ni duñu jàll bu ñu agsee dañuy rot fii qaari jahannama yal nañ ci yàlla musal étape yooyu rek a ci am loolu al àdduna doy na ci misaal mu ni kon kasiraate dafa jub xocc wa kal misaani comme balance maadilatan ci maandu alquran du jox kenn aqu aqu jàmbur moo tax mu ne fal qistu maandu min gayriha ku ko sàkku ci keneen ku dul aaya alquran yooyu lam yaqu mi saxut amut finnaasi ci nit ñi nit koo xamante ni day àtte du sukkandiku ci alquran ba pare ni dafa maandu la muy àtte di safaanoog ak alquran mu ni kooku maanduwul maandoom taxawul mukk mu ni laa tajaban li xasuudin raaxa yunkiruha tajahulan wa huwa aynul xaadiqil fahimi mu ni laa tajaban bul yéemu li xasuudin di ñeel aji añaan ji koo xamante ne raaxa dafa gont rek yunkiruha di ko weddi tajahulan di réer réerlu wa huwa ta mbir moomu moom aynul xaadiqil fahimi moom am na bëtub aji dégg ji aji ñaw ji dégg moo la gën a dégg li alquran di wax waaye dafa weddi kii weddi jantum njolloor lu ci waay man ki génn jant mi ne dàng mu ni gisuma ko lu ko waay manal mu ne nag bul yéemu ci kooku de ndax lan mu ne xat tunkiru xat tunkiru l aynu daw a shamsi min ramadin wa yunkirul famu taamal maa i min saqamin mu ne ah loolu bu mu la yem xat tunkiru ay léeg-léeg dal di weddi al aynu bët daw ashamsi leeru jant bi ndax lan min ramadin min ramadin ngir ngir wànnent xam nga yéeféer yi dañoo wànnent dañoo gisul dëgg-dëgg alxuraan li ci nekk gisuñu ko moo tax yàlla ba mu leen di gindi par genn kenn ku ci gindeeku rek danga naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy wax du waxi nit de ba mu ko waxee bi nga ko xamul dañ ni moom ab jabar la te yonent bi li mu wax alxuraan la arab la jàngewul fenn ci àll bi ci arab yi la jànge génnul fenn fu ñu génnul mu ñëw wax arab yoo xamante ni daf leen a jaaxal ñu ni kon ab jabar la nañ wax ni ab jabar la benn mucjisa bu mu indi ñu ni ab ak njabar la te ñoom li muy wax arab la waaye ñoom mënuñu koo mënuñoo toppandoo lu mel ni moom am na ñu ko jéem waaye sottiwut Musaylama wax na woote na fi nubuwa waaye deful ay fan moo tax mu ni ñooñu loolu bu mu lay yéem xattun kirul ayn ay léeg-léeg bët wedde daw ak samsi ni jant bi daal day léeru dafa lëndëm ndax lan min ramadin ngir wànneen wayunkiru ay léeg-léeg tamit mu weddi taamul maa i cafka ndox mi min saqamin ngir feebar ay gis nga boo sibburoo buñ la joxee ndox ma ndox mi nga xam moo daan gën a neex buñ la ci joxee mu sedd sax nga ne dafa lewet loo teg ci sa gémmiñ loola dafay lewet ngir lan ngir si ngir ngir feebar loolu nag tekkiwul ni ndox mee neexut waaye yow sa gémmiñ a neexut kon alxuraan lépp lu ci nit di sikk problème bi ci alxuraan mais problème bi ci yow mi koy sikk la yow yaa am problème mais alxuraan amul problème foofu laa bunt bi jeexee buntu juróom-benneel bi ci dars bi di ñëw incha allahu ñu dugg ci buntub juróom-ñaareel bi mooy fi israihi wa mirajihi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu